ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam ci xibaar yu wér te wóor Sadio Mané dinañ ko ci boole ak kii di Brahim Diaz mi nga xam ne match bi war a am ci kanam tuuti euh, Real Madrid boo war a daje Cadix euh, bu ñu juumul loole tamit daanaka dina nekk match boo xam ni match la bu ama am solo ci course bi nga xam ni moo nekk lii la di championnat Espagne boobee nga xam ni euh, lii la sax di classement bi wadd na ak avantage yi nga xam ni war nañ ko am Sadio Mané ñanco international mi ngi noonu tey jii nag dafa def tàggatu goo xam ne gu am solo la ginnaaw bi mu jógee fii ci Sénégal jóge fa dem fële ci Togo ci ñaare match yi nga xam ne doon nañ ko football match yooyu yëpp mu football ko nag amoon coono bu newoon ci yaramam entraîneur ba nga xam ni moo nekk fële ci Al Nasser di Arabie Saoudi moo ko noppal ba match bi passé sax gis ngeen ni bokkul ci match boobee waaye ginnaaw bu mu noppaloo ba defarwaat génnewaat nañ ko mu bokk ci li nga xam ni mooy footballkat yi war a football fii ak ñaar jàpp ñetti fan yoo xam ne match yi day takkar naa sa ndax ñoom dañuy boole lii la di match Ligue des Champions ak na championnat boobee nga xam ne moo nekk ca Arabie Saoudi Brahim Diaz ngeen gis ko mu bokk ci équipe bi nga xam ne moo war a football ak Kadic ci kanam tuuti Carvajal Bellingham Nacho Kroos Modric euh, ak Soslu Fede Valverde Brahim Diaz Rudiger ak kii di Ferland Mendy ñoom ñooñee ñooy fukki footballkat yi war a taxaw euh, fële euh, ca Euh, Espagne nga xam ne match boobee tamit dina bokk ci match yi nga xam ne ñu koy xaar bari na ginnaaw Barcelone bu mu amee match nii témbo benn euh, benn ak euh, Real Vallecano loolee tamit tax mu ñàkk ñaari poñ ci bopp classement bi nga xam ne kon Real Madrid bu fekkente ne gagné na moom day taxaw position bu baax ngir mën a jiitu ci li nga xam ne mooy boobee championnat di championnat espagnol kon Brahim Diaz moom it ñu ngi koy accélérer li nga xam ne mooy temps de jeu binu nu jàppoon ni du ko am fintoon ni nag mi ngi koy commencé am fekk booba fële ca Espagne ba tey ci ngoon gi daanaka équipe bi la nga xam ni moom nag euh, équipe bi la di Villarreal am na ndam lu yaatu.